nuyu di la ziar ma sœur euh, Suzanne daanaka am na ñu bëri ñoo xamante ne xam nañ la ci diwaanu Sénégal mais am na ñoo xamante ne xamuñu la pour sa présentation bu gàtt ñi la jotul xam-xam la. Euh, maa ngi delloo ziar ñëpp di baalu àq ñëpp ci weeru koor bi euh, nag Suzy cosmétique lañ may wax maa ngi ci milieu cosmétique bi ci jaay saabu beeg diw yeeg yooyu waaw ci yooyu laay dox. Ah, dafa mel xale yi Sénégal yi di lëmbe te xees yaa leen tax xees. ñëpp ku fi sa teen taxaw man la képp ku fi rafet teen mélangé wul jaxasoowul man la. maam Ndiaye savon kon am na problème de. <laughs> yaa ngi may tooñ. ah damaa xam ni bu fekkee yow yaa fiy joxe lu baax kon maam Ndiaye savon li muy def xanaa baaxul. Ah, xan kay ñëpp a baax le ñëpp a baax la waaye ku nekk sa bopp nga xam. mais xale yi nga xamante ne yaa ngi leen di jox diw nee nañu sa diw moo gën a efficace ñoom instant bi yow la ñu choisir. Ah. la woon woon ni la. ah waaw xam nga ku ku ku ku laal sa produit rek moo lay xam ku laalu sa produit mënul xam donc ñiy wax ñëpp dañoo laal loolu moo tax ñu xam. ku xool ni nga mel xam ne li ngay jaay baax na yaa ngi belli. lii tey la tamit du ay caaxaan de lii tey du ay caaxaan. d'accord bu ñu génnee ci loolu ñu dugg directement ci madame Mbacke bi nga xamante ni troisième édition mi ngi joxe ay ndogu euh, yow nga teew euh, di xaritam di doomu ndeyam euh, mën nañu xam sa sa xalaat ci waaw lii moom wax dëgg yàlla depuis boobu ba tey ñu ngi koy def daaw def nañ ko ren tamit macha allah réussir na te liñ si bëggoon yëpp am nañ ko kontaan nañ si te bëgg nañ tamit déwén incha allah mu gën a gën a gën a yokk ñu romb fii yëpp. parce que initiative bu baax la vraiment jàppalante nañu organiser nañ ko pôle euh, taxaw si muy affaire chrétien ak musulman yi ñun ñëpp bokkandoo organiser ndogu mu mel nii te macha allah réussir na. d'accord yaa ngi seeraan série bete bete bete waa en tant que ngay jigéen sumbalu di jigéen euh, ñu bëggoon xam euh, classe bi nga xamante ne ñu ngi koy classe te rôle rek lañ ko jox mu joué ko euh, mu réussir total sa xalaat ci loolu en tant que jigéen ah, mais ku nekk ak li ngay xalaatee rek xam nga moom <laughs> ku nekk ak ni ngay ni ngay xalaatee parce que rôle lañ ko jox rôle bu mu war a joué te yaakaar naa rôle buñ la ko joxee tant que nit ñi gisuñu ci seen bopp yow rôle bi boobu rôle boobu kiiwagul euh, nu mu tudd sax matul parce que dañ kaa jox rôle ne ko joué ko mu joué ko ku nekk gis ci sa bopp noonu mu ko joué ba nit ñi gis ci seen bopp loolu moo noonu la rôle bi baaxee. jàpp nga ne kon rôle bi réussir na ko. réussir na ko parce que loolu moo am actuellement loolu nit ñi dañ koy dund dañ koy dund comme mu feeñ comme mu dañ koy dund donc lu lu dinañ ñëw jël la spécialement ñu la différence bi diggante Mame Ndiaye Savon ak Suzanne. a kenn wax luy xëbit te ah c'est xew de avant tout ban borde, nga sol. Euh, de partage partage ndogu def blanc entre musulmans et chrétiens. mais sa secret lan la yow ak sénégalais yow y a des avant tout c'est quoi. xanaa teint bu rafet di leen defaral seen teint yu baax di leen defaral seen yaram yi mu set ah ñuy kontaan seen waay yi di kontaan seen borom kër yi di kontaan. dafa am dafa am dafa am euh, jigéenu Sénégal muy groupe Cheikh Marie euh, groupe bi daa tas amatul ndax groupe bi tax amatul yow yaa tax groupe bi amatul ndax ñëpp am nañ jëkkër lool loo ciy wax loo lu nga def ba tas groupe su Marie loolu lan la. xanaa tilim bu ñu tilimoon ba kenn gisu leen ñuy cherché tilim bi laa raxas suuf si jaratul ñuy cherché dañuy taxaw rek ñu jàkkaarloog ñoom jaratul ñuy cherché. mais lan ngay wax waa Identique Pro ñi la seet si tey. xanaa kontaan si ñoom ñu baax wax dëgg yàlla couvrir euh, kii bi euh, événement bi ba pare ñu oyof. ah fonk ñëpp nag ku ñu gis tàllal nañ la micro xeebuñu kenn man loolu moom ma neex ci ñoom. léegi may nañ la nga dugal sa numéro commercial ñu bindalu ko ci suuf képp ku soxla lu rafet comme ni ma koy waxee rek bés mënut a weesu lu rafet mënut a weesu loolu kii moo tas groupe groupe bi nga xamante ne moo pon doole Sénégal muy groupe Cherche Marie group ba tas na ndax ay saabum dañoo tilimoon. dañoo mais nag war nañ la delloo njukkal de. sang naa leen ba ñu set naa leen ba ñu set samay diw da koy diwoo génn ci biti rek góor bu la njëkk a xool topp sa ginnaaw yaay yaay daw waaye ñoom du. woy song naa ko joxel numéro bi joxel numéro bi. Ah, numéro bi 77 ku bëgg sox soxla cosmétique ay saabu yu crème visage yu baax lait de corps yu baax yoo xam ne la yàq heure la am teint te am problème 77 611 18 05 whatsapp bi mooy appel normal bi aussi ku ko di nga am teint bu baax non da rek na ñoo Ah, fora disso.